metti xam ne rek waa digg doon nañ ko l'observateur ak libération di ñu xamal ne kay jamono ji moom Clédor Sène eh, teg nañ ko loxo waaye ñi nga xam ne rek ñoo ànd ak ñoom eh, ko yëkkati moom Clédor Sène dañoo jàpp ne benn audio goo xam ne maanaam daal na maanaam daal tey jii ci talaata ji la defante ba war a tàmbali yéenekaay gi dañu xamal ne boobule audio kay bokk na ci audio yi nga xam ne rek moo rëcc ci daal siiw ba tax na nag takk der yi doon ko wër ba jëli ko këram bu dee nag lu soxal mbirum ki nga xam ne rek moom moo di Birame Souleye Diop ak soxnaam yéenekaay gi di libération di ñu xam xamal ne moom kay jamono ji moom ak ñenn ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci passé te doon jàppal tànk moom moo di Ousmane Sonko maanaam lépp loo xam ne rek jëm na ca googale ko fànn jamono ji nag mbir moomee parquet bi daan na koy jébbal doyen des waaye tamit benn réquisitoire boo xam ne rek jot nañ ko dugal maanaam daal lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu ko menace de mort ji nga xam ne rek jàpp nañ ne moom Biram Souleye Diop moo ko doon amal bu fekkee nag dëggal nañ ko ñoom ñaar ñëpp danañu dem prison bu dee nag soxna Biram Souleye Diop moom kay jamono ji ci wàllu yoon maanaam dina xaarandi ay mbiram ñu daal di koy lëñ ba loo xam ne rek jëm na ci wàllu tëkku ci faat bakkan ki nga xam ne rek moom

njiitu réew mi Macky Sall ci nekk ay cadre ci parti bii nga xam ne rek moom moo di Pastef di parti Ousmane Sonko bi birum Ousmane Sonko ak lépp loo xam ne rek jëm na ci assemblée nationale ak taxawaay gi nga xam ne rek fas yéene nañ ko amee yéene gi duñu xamal ne nag lépp loo xam ne rek jëm na ca procédure ba maanaam daal jot nañu koo tàmbali yéene kaay gi di la quotidien duñu xamal ne moom kay mel na nag ak féewaloo dox na ci ñenn ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee foofe maanaam ca commission d' ba waxtaan yi nga xam ne rek boobaak léegi ña koy amal mel na nag ak déggoo amu ca ndaxte ki di xew daal jamono ji Ousmane Sonko député yi nag mel nañu débbal nañ ko wàllum yoon maanaam daal mbalaanum kiiraay ma danañu ko muri ba mu set wecc le Témoin yéenekaay dina xamal ne ki nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko jamono ji ma nga mel

waaye yéen kaay gi di nga xam ne mel na ni ñàkk googu daa xaaj askanu ñaar ndax ñenn ña ba léegi gëmaguñu am na ci yeneen sénégalais yoo xam ne nag la ñuy sàkk moo di njiitu réew mi i sàll moom mu njëkk a ñàkku le Témoin yéen kaay noonu la ko bindee. ak El Hadj Ousseynou Ndiaye.